asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ah ñi nekk ci urasul irada bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu léegi ñun moom une heure la ñuy mën a am te eh, wax ji ba sept bu une heure jotee daal ñu may la ko bu sept heures jotee mu tëj xëy na saa yi yàlla indee jàmm danañ ko jëlloo siwaat Cheikh Abdoulaye Khadir Ñang ñoo ngi lay nuyu di nuyu sëriñ Alhaaji Jaañ sëriñ Mademba Caam sëriñ Mamour Baawo ñoo ngi Serigne Massaer Mbuub ñoo ngi nuyu Serigne Moustapha Guèye ñoo ngi nuyu Baye Cheikh ñoo ngi nuyu mboolem ku nekk ci mbooloo mi Jibril Guèye ñu daal kenn euh, tey boole nuyu bi yëpp di ko jox Serigne Abdou Latif mi jiite mbooloo mi Serigne Abdou Baax yi ak ñi ci des waaw Serigne Abdul Xaadir ñan xam nga dafa mel ka ni Thomas Sankare Sankare lañ ko waaye Sankare la sant Sankare dafa mel ni kii Thomas Sankare dafa dellu siwaat Burkina di jëmm jaa dellu si pas-pas ba ak fitwa ak at ak at yamu amoon ba muy jiite réew ma ak fulla ja ak fayda ja ak dëgër fit ga ak xam intérêt yi réewum ak xam lan mooy intérêt africain yi ak fonk der bu ñuulam gëm amee woon ak bëggam lu baax ga ak bañ lu bon dafa mel ni ki Thomas dafa dikkaataat ci Ibrahima mi boo ko dégloo ci discours yi mu doon def ci Russie Eh, ndeysaan xëy na xëy na mu ëpp mu ëpp sens Thomas sanqara xëy na mu ëpp ko sens xëy na laa wax nag ndax jamono ji fi Thomas di nekk booba tubaab yi seen dëngoo gi ñu dëngoo léegi fi mu egg eggu fi woon booba ak lu ma a xewit àndoon nañ ci ne Afrique moom nañ ko nappaaje bu bu mu jóg kuy bañit bu mu fi ne ah balkaani si woon nañ ko séddale ko ba ku nekk la nga féetewul nga féetewu ko di ca dogal la la neex la cay dëgg ak la dul dëgg yépp yoonu kenn wu ca ñu gàddu seeni veto nekk ca si nii kenn ku nekk di défendral sa bopp sa intérêt ci sa veto ba nga am di ci défendre képp ku nangoo doon sa dunguru balaak boppam ngay jëriñoo alali réewam mu ngàbbu ab tànkam di wër di yalwaan comme ni ko ab ni ko Ibrahima waxee ca Russie xëy na moom moo am fitu taxaw ne président africain yi lan moo tax ñuy wër di yalwaan déglu naa discours am bi waaye wër di yalwaan googu mu wax mooy li am Afrique léeg-léeg kenn feeñ gaa yi nappaaje ko léeg-léeg keneen feeñ gaa yi nappaaje ko waaye gëm naa ne nag danañ mas a feeñandoo feeñi ni woo xam ne dañ du mën a nappaaje ñëpp su boobaa xëy na li ñu xaw a paralysé sax bokk na ci ni Afrique nekk ñaari askan ndax Afrique mooy réew moo xam ne awlaadu saam ak awlaadu xaam ñoo fi dajee maanaam doomi mam saam yi dañoo nekk Afrique doomi mam xam yi nekk Afrique te mam xam ci boppam dafa yebaloon ñaari doomam fii ci Afrique kenn ki muy Koosi kenn ki mooy Misrayim Koosi la dëkkaloo woon Éthiopie Misrayim mu dëkkaloo ko Misra Misrayim jooju moo indi niilu Misra waaye bu fekkonte ni Afrique doomi saam yi rek lañ fee dëkkoon mu mel ni réewi arab ya wala Afrique doomi xaam yi rek dëkk fii kenn raxu leen mu ñu ñuul ñi kese na mu meloon ba ko maam saam di sancloo dooma ñaari doomam kon ba tey paase nañ fii waaye nag dañoo wax ne néegam day jàmbur waroo faa guddee ndax doo fa fanaan Afrique dafa nekk ñaari xeet arab yi saam jur nit ñi ñuul ñi xaam jur nit ki ñuul nag di koo xam ne maanaam contrôle gañu contrôle yonti yàlla noohin àddina yëpp ànd ko bañ ba ca yaa noohin xat jaadalta naa fa ak sarta ji daala naa bu dee li ngay wax dëgg la yàlla wax indi bu dee am yàlla ju mën a ak àddina nanga maanaam na àddina àndoon ci contrôle noohin noonu la contrôle googu continuer ci képp ku yor melawu noohin ci jëmm képp koo xam ne kii yor nga melaw nooyin ci jëmm mooy al li ñuy wax euh, ñi am yaram wu tikk wi ndax nit ku ñuul ñuulut boo ko dee daleg lu ñuul nga xam ne ñuulut nit ku ñuul mooy ki nga xam ne boo ko xoolee te teeylu melaw wu nekk day nekk ci biir yaram bi waaye ñuul moom nit ku ñuul defu ko loolu tax ñu di ko wax jinsul asmar asamra nag mooy lu sokola loo xam ne boo ko xoolee gis ci xonq soo ko xoolee gis ci ñuul soo ko xoolee gis ci ay melo yu bari waaye jinsul asmar boobu di nooyin ak maam haam ak li ñuy jur ba àddina di àddina ba léegi dañ leen di nappaajee te ba yàlla séddale it la gën fi ñu dëkkee la nekk waaye doomi maam haam yi da doomi maam saam yi dañoo gëm ni doomi am daal ay mbaam lañu war a doon yoo xam ne dañ leen di jiital di jaay yi dañ leen di dañ leen di dañ leen di nga xam ne boo toppee histoire da dégg ñaari baat yoo xam ne arab yi dañ koy wax <clears throat> benn bi mooy xabashi benn bi mooy zanji habashi zanji zanji ñun ñoo ko yàq di ko wax sinji sinji yun waaw sinji yun ñu ne mooy nit ku ñuul déedéet sinji yun du nit ku ñuul dañoo amoon ñaari marché yoo xam ne mooy marché yi jaam ñi ci àddina bi bépp ca jooja jamono benn bi tudd Habasha ca Éthiopie benn bi tudd Zanzibar ci Tanzanie ñu di fi buube nit ñi di yóbbu ca bitim réew di leen jaay jaayi nañ leen ba Inde yi nañ leen ba ba ba ba Turquie jaayi moom daal waru nañ leen at ñun daal dañu daan gurgur daal takk yóbbu dem di jaayi am na askan wu nekkoon Irak ca jooja jamono ñu attaqué Misra te boobu nit ku xonq nekku fi ku ñuul rekk a fi ne xeex gañe naw bi yónne yi bi ñu gañee naw bi yónne yi nekkoon foofu dañoo roña roña roña roña roña roña roñ li ñu roñ ci Afrique dugal ko biir Asie te askan yooyu def ko mëtul asakay li yóbbu ko Amérique ñaari marché yooyu amoon nag nga xam ne koo gis ci biladu arab mu dib jaam fa la jógee dañ leen doon defal nag ay identification ndeysaan am na loo xam ne ni ma ko xamee mënuma ko waxee noonu sama xol ak ko dul may mu ngi mel ni nga dem ci marché bi fa ñuy jaaye xar ya ñu naan la waa bii asawaat la wala bii baali baali la wala bi talabiir la wala pël-pël la noonu maam yi daan tànne xar yi ñaa bii kay ah bi bii baali la bi déedéet bii kay du baali baali bii laadum la waaw laadum la bi asawaat la noonu ñu koy ràññee ci xar yi booba noonu lañ ñu doon ràññee suñu maam ya dañ daan liggéey suñu maam yi dajale leen ci seen marché ya ñoom ñu ñëw di tànni xool habashi am sanji maanaam maanaam bii ci marché habasha lañ ko indi wala ci marché zanzibar habashi am am xabashi am am sandi yi ngay taxawee ci marché bi di ràññee naan kii baali baali laam asawaat la noonu lañ doon taxawee ci seen marché ya gurgur ñu maam yi ñu li ñi ñu jógee leen san jabaar ñi ñu jógee leen habasha eh, di di eh, kii jënd day laaj di wax habashi am am am san kii san jabaar ci jaami san jabaari jaami jabaar yi la bokk wala ci jaami xabasa yi la bokk jaami san jabaar yi nag ñoo ñi doon jóge côté fuute tooro lii di yaabe ci jooje jamono booba sax tukulóor nekku fii waaw li jóge ci sow bi yépp dañ ko doon dajalee ci benn marché boo xam ne ñu ngi ko tuddee san jabaar li jóge ci côté bi sidd ba yépp ñu ngi ko doon dajale ci marché bu tudd ci foofu buñ def foofu ci abacha léegi nag ñii jënd yi jaay yi likkat yóbbu ñii dañuy jógee san jabar dikk ñii jógee xabasa dikk léegi nag am na ci xar yu rabe yoo xam ne ay talaa biir lañu da nga sonn ba bëgg a dee doomal ci moom ñoom dara mooy mooy mooy zam ji yi mooy ñi ko jóge côté bii léegi nag bu naa daan jënd jaam dañuy wax xabas yi am am zam ji waaw bi jaam abasa ci marché abasa ba lañ ko jënde wala bi jaam ci mar ca marché zanjabar ba lañ ko jënde zan jooju looloo ko indi ñuy wax zin ji ñuy wax zin ji nit ku ñuul zin nit ku ñuul mooy jaam bu jóge zanjabar mi ngi mel ni xar mu jógee Niger asawaat lay doon asawaat lay doon waaw waaw waaw asawaat yi de danañ ga danañ rëy biir lool danañ am yaram gudd ay nopp waaye nag dañ dul njool loolu moo tax dañ dul njool waaw dañuy gàtt dañ dul njool waaw eh, noonu la mel rek habashi am am zan ji ndax zan mooy askan wi féete woon nii waaw ay ñoom Burkina Faso ay ñoom Mali côté Sénégal jàpp ci jàppi Côte d'Ivoire jàpp Gabon wàcc loolu mooy mooy zan ji foofu la jaam yi yiñ daan jaayee Zanjabar daan jóge eh, yàlla féete ne la it di jóge Habasha moo moonu indil ñaari tur yooyu noonu ñu jàppe woon nag suñu maam ya di leen askanale ci ay gox daañu tànn ci marché yi ni ñuy tànnee laadum ak bali bali ak ak ak ak ak asawaat ci biir marché addi marché Afrique yi noonu la marché yi meloon foofu ci ñoom ñuy tànn siñu maam yi comme ni ñuy tànnee ay xar di leen ay adresse Afrique musta jóg ci di bañ waaye nag sëti yunt yàlla noo in lañu dañoo am ngëm looloo tax làbbe yi dugg fi am fi ay dongo te ba léegi foofu guñu ay yet nañ leen génne làbbe yi ci Sénégal ci Afrique dëkkuñu fi ndax dañoo nangoo gëm looloo tax islam dugg fi ba léegi gaa yi foofu ay yet nañ fi génne islam nit ki ñuul dafa am ngëm soo ko woowee ci ngëm da wuyu mboolooy diine yi ngay gis sax ku nekk bàkkuy tëggay li wax ne maay diw ak maay nii ma toll nii loolu moo ko indi ci biir Afrique Afrique africain soo ko bëggee ilif da koy woo ci ngëm